mbay Diouf Dia de candidat la ci présidence fédération sénégalaise de football candidature boobu nag club bi mu jiite ñoo ko sàkku. bureau Mbour Petite Côte membre yi waa comité directeur supporters sages ak sympathisants yëpp dañoo tase tey ci assemblée générale extraordinaire président Mbaye Diouf Dia ñun Mbour Petite Côte dañ koy proposer à la candidature. au poste de président de la fédération sénégalaise de football. mom mi nga xam mom moom lañ tànn nag wax yan condition la tegoon bala muy nangu. Eh, li nga xam mom la laa comme condition moy bàyyi équipe bi parce que yaakaar naa ni mëno nek président fédération war a club Sénégal yëpp ba par dellu ci nek président ben club. Ah, loolu accepté nañu ko bi ci dess moy pouvoir bi nga xam ñom ñoko amit ko permettre ma déposer candidature nangu nañ ko delloo ko département parce que nag bu ñu ko fàttalikoo rek lu man ñaar fukki président fédération am nañ fi ñaar rek ñoo ci dëkkul Dakar mooy Babacar Ndiir président papay ma Soura Ndiir seen collègue journaliste bi ci des mooy maître Aba Talib li ci des yëpp ay candidat jóge dakar te football bi nag defe naa suñu ne 300 clubs 200 yi nekk ci région yi waa région yi mën a dellu à la base pour organiser wu de sorte que ñu mën a briguer candidature boobu donc proposé nañu ma ko wax naa leen samay conditions d'accord nañ ci jël nañ engagement ferme que dinañ défendre couleur d'abord Mbour département ak région de Thiès pour candidature bi nga xamné fédération sénégalaise de football. mom Mbaye Diouf dana nag wuute na ak El Hadj Diouf mi bañal Augustin Senghor 3e mandat ndax Mbaye Diouf jànnee na teg si terewul mandat waye tendance mondiale bi moy ñaari mandat